vous venez de battre l'équipe de la par 2 à 0. Quel est votre sentiment Satisfaction, satisfaction. Après avoir issu une défaite contre Génération Foot, il fallait une réaction positive et les jours l'ont fait. Donc c'est une satisfaction pour l'entraîneur et le staff, euh, l'équipe du Giraffe et tous les supporters du Giraffe. Vous avez réussi à marquer deux buts face à une très bonne équipe de la Ligue euh, Qu'est-ce qui a été déterminant durant toute cette partie euh, Je pense qu'on avait dit aux gosses euh, d'imposer le jeu Euh, dans la zone de l'équipe adverse parce qu'on savait que euh, la Linguère, euh, en venant ici, joue un 4-4-2 et essayer toujours de gagner les deuxièmes ballons. Ce que la Linguère n'a pas réussi aujourd'hui, ce qu'on a réussi. après, il faut se dire que les gosses aussi, ils ont essayé à un certain moment malgré euh, l'état de la pelouse, d'essayer de poser le ballon et d'orienter un jeu un peu associatif, même si c'était un peu difficile, et de marquer des buts. Je pense que à marquer deux buts devant une très bonne défense de la Linguère, c'est satisfaisant. Ça ne veut pas dire que nous sommes très bons. Euh, ça veut pas dire que si on était très mauvais devant Génération Foot, pour vous dire que tout, on le met dans le compte d'un bon travail. Il faut encore doubler d'efforts de gagner la Linguère, mais on a un match très difficile contre le Casa Sport la semaine prochaine. Comment aussi. vous appréciez le fait de jouer au stade Ibamar alors que le terrain n'est pas en bon état euh, Je ne dirais pas que le terrain, certes, n'est pas en bon état. Euh, C'est un terrain, certes, à améliorer. mais on s'est entraîné deux fois et on a décidé d'y jouer en tant que technicien et en tant que pratiquant les jours. Donc pour vous dire que la décision, même si elle a été prise euh, par le club, euh, c'est nous les pratiquants que nous avons dit qu'on peut jouer et on peut faire un bon match. Aujourd'hui, malgré l'état du terrain qui reste à on a fait le match qu'on voudrait faire, c'est-à-dire jouer et gagner ce match. Euh, waaw yëg-yëg bi du dul du dul kontante ndaxte équipe bu fekkee danga nga génn si defet li ngay jéem a def mooy defaraat bu baax ba am résultat positif tey jii moom la xale yi def euh, comme ni ma koy waxee rek ndam yi lépp dañ koy wekki si xale yi ndaxte ñoom ñooy njaxlaf ñu am victoire ñoom ñooy njàkki njaxlaf ñu am défaite tey ñoom ñooy njaxlaf ñu am victoire kon yëpp dañ koy jaloos ñoom pour waxee ni satisfaction la bu ñu am pour mën a a tey. nga dugal ñaari but ñu mën a xam lan moo déterminant ci biir match bi. li déterminant du leen loolu xamoon na ne Linguère dafay fubal euh, ñeent si ginnaaw ñeent si digg bi ak ñaar si kanam balancer ay ballon gagné deuxième ballon loolu lañ ko jéemoon a xañ tey ba nga xamante ni à chaque fois buñ rece buñ récupéré ballon daan mën jële jouer si zone am si loolu am nañ benn combinaison si premier bi dugal deuxième mi-temps ñu gis équipe bu génn ñu xam ni buñ defee ay passe si profondeur mën nañ am dara ba deuxième bi bi noonu xamante ni def nañ ko ak xale yi ñu appliqué ko am si ndam alors le fait de jouer à Iba Mar alors gis nañ am ay jafe-jafe euh, ban jàngat ñu ko mën a defal waaw terrain bi donte am na ay jafe-jafe ñun entraîné nañ fi ñaari yoon décision boo xamante ni si kaw la jóge woon que bëgg nañ équipe bi di retrouver public am football fii ñun ñu ñëw fi entraîné en tant que technicien entraîné fi aussi en tant que joueur ñu xam ni war nañ fi football def fi match ñu entraîné fi ñaari yoon joué fi sax d'ailleurs mercredi match amical ñu xam ni terrain bi certes c'est améliorer mais bu fekkee Eh, amélioré ko tuuti rek mën nañ fi am ay ndam ndaxte tamit eh, nit ki bu fekkee da ngay fubal sa dëkk say supporter taxaw eh, am public boo xamante bu mel ne tey ji ñëpp ñëw taxaw terrain bi ak nu mu xaw a mat ñàkk matadi ñàkk matadi buñ si amélioré tuuti rek war nañ fi mën a recevoir di gagné ay match fi